ci wàllu transport en commun ndax ñun ñi ñëpp di ne ci transport bi gaaru ceer lañ nekk euh, transport nag dafa am sooxe fii ci Sénégal te yaakaar naa chaque jour rek képp kuy dem di dikk rek xam nga ne sooxe am na ci transport en commun ndax am oto bi la yóbbu ba fi nga jëm jafe na euh, teyit oto bi nga xamante nii moom ngay jël gaaru ceer mu war laa yóbbu ba fekkee da nga jëm biir dakaar loolu tey jafe-jafe bu rëy la fii ci Sénégal ak foo mën di jëm ci Sénégal euh, wàllu transport am na sooxe bu baax a baax waaw léegi nag bëggoon nañ kii di président ak ay ak ay njaatigeem maanaam ak ay euh, ñi nga xam ne moom la yooyu dénk wàllu transport ñu ñëw ci biir transport waxtaan ak waa transport ndax transport am na jafe-jafe bu baax a baax ma damay wax ne mbir mu ne da nga koy jox ka nga xamante nii moo ko moom moo ko yellool moo ko xam mooy tax mu dox ndax Sénégal am nañ problème bu rëy rëy rëy rëy toujours li olof di wax naan naaru góor kenn du ko jox sa waay da nga koy jox waayam Sénégal nag problème boobu lañ am lépp loo xamante nii lépp lu war a jëmal Sénégal kanamam duñ ko jox ki nga xamante ni moo ko xam am ci xam-xam war koo doxal dañ koy jox ki leen neex rek loolu nag ci fànn bépp lu transport kese te Sénégal fi ci guddi yoo xamante ne nii guddi goo xamante ne nii bët setagul la te loolu ñi nga xamante ni ñooñu ay njiit tàmbalee ci président ba ka gën a nekk ci suuf tey jii seen yitte yëpp mooy Sénégal génn ci guddi googu te looloo tax askan wi teg leen fi te mbir mi jafe-jafe yi bari na ndaw ñi gis ngeen kenn ku nekk li xew ci fan yi kenn du ko wax kenn kenn ku nekk ku ci amul doom am nga ci mbokk am nga ci jarbaat moo xam président moo xam keneen waaw te loolu jafe-jafe la te li ko indi lépp lépp lépp lépp lépp moo jafe-jafe yu rëy te mbir damay wax ne Euh, desut bàyyi ba mu ne tëll rek ñu soog a wut solution dañoo war a wut solution bu yàgg waaw. ndax mu mel ni tamit jamono ji ñu ngi indi ay solution di yeesalaat yi nga xamante ni moo di kaar yi fële ca dakaar moom ñu ngi commencé daw fii ci Thiès nag mbax gis ngeen ndax gis ngeen seen bopp ci loolu. waaw loolu ñun ñu ngi koy dégg ne ñu ngi indi ay oto yu bees waaye toujours damay wax ne rek ñi nga xamante ni ñoo nekk ci terrain bi lu ci bari ay dégg-dégg la ñuy am rek ay décision yu jóge ci kaw mais kenn kuy ñëw di waxtaan ak ñoom ci wàllu transport toog ak ñoom ñu xam ñoom lan lañ bëgg ñoom lan lañ yelloo lan lañ leen war a jàppale parce que nit bala nga koy jàppale aussi tamit il faut nga xam lan mooy lan mooy seen jafe-jafe. waaw mooy leen ñun ay nit transport en commun lañ suñu jafe-jafe man damay wax ne sax jafe-jafe sénégalais yi surtout transport bi ñu féete ñun bu dee transport man damay wax fii ci Sénégal lii may wax nag sama xalaatu bopp man du doon ne maay président mooy permis transport en commun tax sa Sénégal léeg nga gis accident di am mu mel ni campagne accident yi di tegaloo mel ne campagne accident dafa am bu ñu toogee xëy na ab diir tuuti accident amatul ñu waat ci mbir moomu te man damaa jàpp ne war nañ tuddee solution. maanaam daal su ma la déggee permis dañ koy joxe nu mu leen neexee. Ah. segguñu chauffeur yi. segguñu chauffeur bi parce que voilà permis yi niñ koy joxee ki ñu koy jox yelloowu ko ndax xam-xam bi nga xamante ni moom la war a am pour yor permis boobu amu ko. ndax lan parce que permis yi damay wax ne état war na taxaw tey ji parce que gis nga nit lu xamul mënu koo maytu loo gisul mënoo koo maytu loo xamul mënoo koo maytu damay wax ne permis transport fii ci Sénégal ni ñu koy joxee baaxul damay wax ne bi na ubbi ay centre yoo xamante ni képp koo xam ne dem bay am permis transport en commun ñu xam permis bi lañ la ci digal ak lañ la ci tere ban sañ-sañ nga am ak li nga am sañ-sañ nga amul kooku nag mënu ko jékki-jékki nii rek toog ci oto yi di jàng ci vana di jàng ci mbedd yi ba xam ko bëgg xam li transport laajte day xëy di dawal di dem rek du xam ne muy maytoo day fekk risque mu dugg ca fekk luñ ko tere mu di ko def chaque jour moo waral lu bëree bëri nit ki du question ne caaga ne dañoo réew wala dañoo xam ne dañoo xam loo xamante ne ni jéyee lay doon fa muy xamee du am bi nga mooy permis transport en commun dañoo war a ubbi koo xamante ne nii war nga am transport en commun ba centre yooyu di dem ci àdduna bi ne permis war naa mën a dawal Sénégal war nañ àgg foofu pourtant yeneen réew ñu ngi koy am permis transport en commun bi bari nañu ko am te tey jii wuñ ko parce que jànguñu transport en commun xamuñu lan mooy transport en commun damay wax lan mooy transport xamal leen code de bi am ci tali bi kenn ne xam ko li nga war a def ak li nga war a demee kenn ku ne bu ñu yëkkatee permis doo ko jox ñu xam ne yow mii kat permis bii ñu lay jox xam nga lim digle xam nga lim tere su boobaa yu ci tali